Serigne Touba rek laa bëgg. moom la nga bëgg. moo wóor mbaa xam ngeen ni Serigne Touba xaadimu rasul boo ko joxee sa ndaw. gëm ko te muy dëgg ci yow nga wóolu ko foog ko barki Seexul Xadim yaay raw koo mës a àndal ci àdduna. dëgg la la bu dee yéen ñaar da ngeen di ànd. fi nga teg Serigne tubaa kii tegu ko fa. bu déwénee yaa koy raw dalay ñaan paas. bu dee nag yéen ñaar a tolloo level ci Serigne Touba Xaadim Rasul yéen ñaar loo jënd mu jënd ko kenn du Ahmadu Xaadim Rasul oy ma xale nga defal lu la neex xale nga jeunesse nga war ngaa nekk ci yenn yi comme yi ma nekk nii rek yi fi àddina ak yooyu sow biis waaye yàgg-yàgg dama nan ko fi ñukk topp yoonu Serigne Touba bi ndax jox leen man ndaw ñi ma def ci ñoom mañ ñi la wax xale ngeen waaye noo leen mënti mel topp li Sëriñ Tuubaa bi ngeen di topp bi may toll nii yéen fii laa ci Tuubaa gi chaque màggal di lëmbe di dem fu ne di wër ni ngeen di wëree nii di yéeg ay mbaam di wàcc di def ay mbir waaye li may def loolu yëpp sama xel maa ngi ci yor sama këru Tuubaa fii comme ni nit ñi di ñëwee di màggal si may dem di lekk du ma yóbbu dara xam yaa ngi nii ba ngay dem ñëw màggal indiwoo ndox xam nga yow indiwoo ndox yow indiwoo ndox yow indiwoo ndox yow indiwoo ndox yow tamit indiwoo ndox yow indiwoo ndox tàngal sax indiwoo lañ ko léegi nag loolu da di sabab lu boo leen màggee fay ko xaadim rusul nas fu mu nekk ni Serigne Touba leen def lebal yéen te Serigne Touba loo ko lebal dang nga koo war a fay lu it lu mu la lebal dala koy fay ndax Serigne Touba ñemewul bor suñ tubaa ñemewul bor de waaye boo ko joxee sab ndaw mu def ci yow mag mag mag ñu baax man dama bëgg siriñ tubaa de gëmewuma ko attanuma ko daf may teral may gis sëriñ tubaa may na ma lépp booy man fu ma bëgg dem dem fa ci àdduna man man fu ma bëgg man du ma wut visa fenn man tubaab du ma gis tubaab noppi damaa gis ci ay ambassade may ñaani visa man du ma ñaan visa billet rek laay jënd fu ma neex dem ci àdduna ku ma ko defal moom laa ko ñaan mu ñaanal ma ko yonent bi yonent bi yeggale ko appuyer affaire yi am oto bu rafet laay dawal xale bu ndaw laa am naa ay kër ay Sëriñ Tuubaa rek may ñëw fii Tuubaa dërëm yoruma daa am ko ma waroon a jox xaalis trompé ma nii lépp mat na Serigne Touba moo leen ko te muy dëgg yi dafa bari. gëm leen Serigne Touba wax ji euh, foofu la mujj damaa gis xale yi ndaw ñi bëgg def ci ñoom Serigne Touba bu leen ko caaxaanee ma ñàkk sama ndey ak sa barki alxuraanul karim billahi wallahi tallahi barki cheikhul xadimi laa la wax. boo gëmee Serigne Touba yaay gën ku gëmul Serigne Touba ku koy gëmantoog yi di laxatu waxuma nag gëm ko da nga koy fësal Serigne Touba ku ko gëm doo torox ci àdduna xoolal sëñ Muntaxa démb damaa dem mun Muntaxa vidéo baa ngi nii ne ko Mbàkke Balaye sa ngi nii ndaw laa bëgg Serigne Touba lool mu may déglu ma ne ko am ci moom yëg-yëg lool di ko fësal fépp nag damaa bëgg nga ñaanal ma gudd fan damaa bëgg damaa bëgg nga ñaanal ma raw samay maas mu ne ma sax ci loolooy sa gàllaaj loo wax da ngaa mujj bàyyi sit di snap mais kii gàlla yow yéegal sa micro bi ci wër waxal dama bëgg nga wax ban message ngay lancé ñi nga xamante ni ñu ngi jugee depuis Dakar di ñëw yoon bi xat na métti na te accident yi jotoon na te xaw na bëri. daa am accident. mais ñooñu xanaa dañoo dof. tëfër yooyu mais sëfër yi sëñ Mountakha wax na man wax naa. ku wax na ku ne wax na. mais dañuy nelaw. waaye nag dëkk bee métti métti dëkk bi dañuy xalaat dépense sonn. da ngay gis chauffeur bu ci war a daw deux courses daw vingt deux courses war a nelaw du nelaw ndax njaboot bu ñëwee reyaale ñu bari dañu waxante dëgg deux courses ngay war a daw suñ Mbàkke jël vingt deux di parax paraxee yoon bi ndax bëgg a profité encaissé ndax bu màggal màggal c'est un business su la màggal gi rawee balaa ngaa encaissé war cent mille ah mais tey ñi nga xamante ne ñu ngi ñëw di màggal si ne xam na ni Sëñ Touba dafa santaane ci bisu màggal bi ñu bernde gan yi xasida euh, jàng li nga xam ne mooy alxuraan loolu la santaane ak sañse ak maye xaalis suba fekk leen ma fi yéen ñëpp may ku nekk cinq mille ku nekk dix mille joxe ku nekk cinq fii dañ lay yóbbu waate waxal nga di nga maye cinq mille waa doo maye. paa bi fee la toll dégg cinq mille rek ñëw. maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp ay xale ngeen jox leen seen bopp Serigne Touba day booy sa bopp solo posam posam ko te muy dëgg sa question yi dafa bari bëggul Serigne Touba foofu la mujj damaa mujj gis xale yi ndaw ñi bëgg des ci ñoom Serigne Touba bu leen ko caaxaanee man ñàkk sama ndey ak sa barki alxuraanul karim billahi wallahi tallahi barki cheikhul xadimi la wax boo gëmee Serigne Touba yaay gën ku gëmul Serigne Touba ku koy gëmal toog yi di laxatu waxu man nag gëm ko da koy fësal Serigne Touba ku ko gëm doo torox ci àdduna sëñ Muntaxa démb damaa dem sëñ Muntaxa vidéo baa ngi nii ne ko Mbàkke Bàllay sa maa ngi nii ndaw laa bëgg sëriñ Tuubaa lool mu may déglu ma ne ko am ci moom yëg-yëg lool di ko fësal fépp nag damaa bëgg nga ñaanal ma gudd fan damaa bëgg damaa bëgg nga ñaanal ma raw samay maas mu ne ma sax ci loolooy sa gàllaaj kenn da ngaa mujj bàyyi site bi di Snap